Euh, ak ñi nga xamante mooy préfet sous préfet bi gis nañ tuuti ay manquement yoo xam am nañu parce que tey bi nga xam ne wat naa pare dañ ma signalé au niveau de xaare mooy usum xorom bureau numéro 16 ñu ne bulletin jàmm ak njariñ dañu ku ñëw doo ko gis parce que parfaitement na d'accord bi ma ñëwee xool naa bulletin jàmm ak njariñ mais gisuma ko parce que li tax mooy dañoo jël li nga xam mooy PV bi nga xamante ne après bu résultat yi dee génn c'est lu ko war rempli ñu jël PV bi teg ko ci kaw table bi nga xam ne ci la nekk jàpp naa loolu bu fekkente ni suba ba léegi noonu la demee nekku lu rafet nekku lu jaaru ñaareel ma fekk ay nit yoo xam ne ay maire yu war a wote si ñu jox ay bulletin Pastef yi nga xamante ne maanaam mooy am teg ko si kaw ni ko bii normal loolu jàpp naa jaaruwul fii Sénégal ñoo ko bokk rawatina Touba le meilleur ki gañ ku gañ bu ma félicité la ndax yaakaar naa ne élection député dafa am solo mais waruñu nekk ay sabotage parce que wate na agsi nañ ba fii de bureau de Wade yi am nañu fi nekk mais matul loolu tamit am parce que en tant que parti opposition mënoon ni maanaam foo nekk mën nga fa am représentant lan waroon def defoon ko mooy point de potentiel la coalition boo demee tey fee nga xamante ne mooy euh, euh, fee nga xamante ne mooy Baylaat université Baylaat bureau ya fa nekk yëpp samay représentant la en tant que le membre de euh, coalition mais ñeneen nag bu fekkente ne joxe wun wala après observation bi kii nag gis nañ ko noonu mais jàpp naa ne Touba sàcc élection moom kenn du ko fa normalement te sàcc élection rek war naa mën a jeex ci réew mi mais di alerter rek autorités yi nañu fexe ba nga xamante ne sécurité bi am nii mu continuer parce que ñun yàq waaye lépp lu ñuy woon nag mën leen sa fekk si parce que yaakaar naa ne depuis 2017 ma nekk opposition di gagné Touba 2022 ma nekk opposition di gagné Touba 2024 ma nekkaat opposition moo xam ma gagné moo xam gagné wu mais kiy gagné tamit dañuy xam ne député Touba lay honorable député Cheikh Abdou Bara Dolly moo doon wax noonu ci kàddu yi ginnaaw bi mu voté ba pare moo doon wax na ay manquement yi mu nemmeeku ci Touba ne ba pare dégg ngeen ko yéen a ko dégg Aliou Ndiaye Cheikh Abdou a Dolly wax na de moom de euh, opposant am ñu apprécié mais kàddu Bougane ak kàddu Cheikh Abdou Bara Dolly wuteeg naa bu Amadou Ba wuteeg naa bu Aliou Sall merci euh, yaakaar naa ni dans le même sillage ah avec les autres euh, leaders Euh, moom aussi vraiment wax na un un discours très responsable euh, da déjà salué na euh, l'organisation des des élections avec le ministre de l'intérieur de bi nga xam ni organisé na élection yi déjà loolu rek déjà le fait que mu magnifier ah l' organisation des élections loolu ça ça ça ça montre pertinemment effectivement euh, l' organisation a été vraiment parfaite euh, bon mais euh, li mu déplorer aussi mooy les bulletins ak absence te loolu c' est au niveau du du bureau de vote jël jël benn kii bu nga xam ni dafa nëbb peut-être loolu par inadvertance la war a a nekk mais loolu nekkul ni ci. partout euh, loolu moo fa am ko donc bon euh, xam nga mën nga euh, am benn incident rek. Mm-hmm. nga nga gis ni c' est un incident mineur par rapport à un mais pas mu nekk vraiment incident bu nga xam ni sur tout le territoire national daf ci am donc bon in loolu dafa bokk ci élection élection moom il faut mu am. Euh, ngay déplorer ay. ay manquement ay manquement yu nga xam ni bon mais faut pas assimiler ça à des sabotages. mais am na sabotage. bu mu ne bu mu ñëw fekkul fu li si jàmm ak njëriñ loolu moom mer na ko loolu. c'est non ah, waaw ah xëy mais loolu moom loolu moom euh, c'est pas normal mën na am aussi. kii euh, dañ ko jël mu jeex. dañ ko jël mu jeex loolu loolu aussi bon. vraiment euh, man dama koy déplorer. parce que je pense bien que durant tout le processus. Mm-hmm. dañu war a bu fekkee loolu am na moom euh, administration bi da ko war a rectifier parce que loolu c' pas normal loolu moom. Mm-hmm. vraiment dama ko ci jàppale ci loolu. Mm-hmm. warul am bulletin bi dafa war a am ba euh, élection bi di jeex mais nag. dañ ko fi gis loolu dafay am. Hmm. ay manquement la yoo xam ni ça ne peut pas biaiser le processus euh, électoral mais quand même euh, ça peut entacher la crédibilité par hmm. exemple du vote au niveau de cette euh, localité mais mais moi je dis que grosso modo hein voilà il a apprécié mais mais il n'a il, il, a déploré ces, mmh. bon, ces incidents qu'il à des sabotages. Cheikh Abdou Bara Dolé et l'honorable euh, Abdou Aline ku ko déglu kontaanul de. <laughs> réaction bi pourtant kontaan hmm. parce que déjà dafa njëkk wax ne <laughs> rafetlu na bonne organisation. waaw rafetlu na ko incidence bi mu wax xëy <laughs> dafa ne en réalité. bu doon ku wax tubaab la danaan c'est un incident mineur waaw d'accord mais pourquoi nu mu tudd fii nekk nii wax waxam gën a crédit bi waxu Bougane parce que waxam dafa ne dañ ma ko wax ma dem seeti ah, fekk ko fa ah, ah. la preuve. Ah par les xam nga nu mu tudd loolu lu am solo la parce que kilifa la minimiser wul kàddu ki ka wax mu dem xool gis xam ne loolu la et ensuite ça va être réglé parce que du parce que du fa jógee nu mu tudd bàyyi fa situation boobu. Mhm. beneen élément bu mu wax bu am solo boo xamante ne rafetlu naa ko mooy nee na maa doon nekk député fii ci opposition saa su ne. Mhm. di dem assemblée. nee na bu fekkente ne nekkuma ko. Mhm. te yàlla ko nekk parce que euh, borom pas-pas la nee na bu nekk ko. ku ko mën a doon député Touba lay doon. te loolu c'est day nekk loo xamante ne. ñu bëri duñ ko wax nit ñi dañuy wax man député parti sangam laa. Mhm. te le député c'est le député du peuple. Mhm. Mhm. xam na beneen élément bi nga xam ne wax na ko mooy nee na en terme de représentativité y a des de l'opposition amuñu représentant yenn bureau yi mais moom seetal na boppam nee na bureau yi ñu ko sasoon 96 yi fenn fu ci ne def na fa ay nitam xam ñi mu bokkal ba ñu waroon def day defuñu ñoo xam presque mais il a comme ça. mais moom nee na bureau mi ña ca waroon dem dem nañ ci c'est juste dire quoi. Mm. borom farlu la. très sincèrement loolu xam naa seen maam ju baax ja dañ ko donnee. Mm. kooku moom léppam ci farlu la mooy mooy la ko def. Mm. vraiment man rafetlu naa discours am posé na et c'est un intellectuel li ma koy peut-être conseillé. Mm-hmm. mooy que mbokk taalibe yi murid yi bëri nañu ay euh, intellectuel na ci for. à zéro franc parce que Mbacke nga mun nañ la jàppale. ñu jàppale conseiller la. Hmm. parce que am na ci loo xam man bi bi ñu bindee livre bi ndeysaan am na ko ne mais jëw ni demal jàppale kële bu ma xamoon man woon bu may dem pour jàppale ko. parce que hmm. am na yéene. am na yéene doyul. la compétence aussi nu mu tudd xam te compétence bu ñu ko waxee en wolof en joola ou en séeréer. Mhm. mën na ko capitaliser pour mën ko articuler. moom yàgg yàgg na yàgg na ci ci eh, nekk député représentant du du peuple moom moom honorable député Cheikh Abdou Bara Dolly eh, xëy na eh, beneen incident bi mu nee na waa PASTEF dañuy def seen propagande pour wane bulletin yooyu moom dal na ci waa PASTEF de. waaw mais Cheikh Abdou Bara Dolly mais loo ci mën a dégg rek politicien la tamit aussi politicien la de waaw c'est un homme politique aussi c'est un politicien xam nga parce que tamit loo yàggee ci biir da xam ne boo nekkul politicien doo mën a répondre mais li ma xam mooy bëgg Touba ak défendre Touba hmm. te mu war ko défendre très sincèrement moo ngi ci peut-être que li ñu koy dolli rek pour mu gën ko defaan Touba. ni Dakar amee nu mu ay communes d'arrondissement. Mm-hmm. na fexe ba euh, Touba aussi am ko parce que Touba am na grandeur géographique. Mm-hmm. ak euh, démographique. ba tax mu war ko mën am. merci aspect xam ne duñ ko tenir en compte. Mm-hmm. man Mouride laa du député waaye loolu teg naa ko ci loxoom. bu ko mën a yóbbaale yóbbaaleel ko. bu ñu ñëwee fi nga xamante mooy département de Mbour un taux de participation de vingt sept virgule